The city of Maple Grove is changing. It is time for our local government to reflect that change. I'm a proud U.S. citizen, an immigrant from Senegal, and graduated from the University of Minnesota. I am very blessed to be living in Maple Grove. asalaamaaleykum jërëjëf Seydina asalaamaaleykum waa Sénégal maa leen di nuyu bu baax euh, di sant yàlla di julli si yonante bi di sant sama waajur bu baax a baax a baax euh, di nuyu sama yaay Ndeye Maimouna Ndoye au passage di ko sargal di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak suñu wéyjur yëpp ah Seydina merci beaucoup si invité invitation bi nga ma invité fii si Bâton Rompu en effet euh, je suis un Sénégalais d'origine euh, né grandi au Sénégal à Dakar plus particulièrement euh, à Dieuppeul donc je suis un natif de Dakar effectivement ça fait un bon bout de temps maa ngi aux États-Unis dans l'État du Minnesota comme tu l'as bien dit bon est-ce que on a eu le rêve américain bon loolu <laughs> nga par moment c'est na c'est une question parce que ku nekk ak ni mu koy gisee quoi qu'est-ce que cela veut dire ce rêve américain est-ce qu'il y a même un rêve américain moi je dirais même euh, plutôt que man li ma dund mooy plutôt une réalité américaine hmm? ça fait comme tu l'as bien dit plus de euh, trois décennies bon c'est vrai mais nous avons vécu un une réalité américaine vraiment nekkuñu woon di gént euh, bon est-ce que on l'a acquéri xam nga àddina moom mënuloo dara satisfait na à cent pour cent su lépp satisfait woon vraiment kon tey du ma du ma dugg si arène politique bi pour taxaw sama askan ah. donc euh, cette question bi xam naa ne ne moom si bëgg a dégg est-ce que je serai à mesure de répondre bon le rêve américain pour ceux qui pensent que l'Amérique c'est un rêve Mais la réalité américaine, ouais, c'est vrai que j'ai vécu la réalité américaine. Euh, j'ai fait mes études à l'université de, du Minnesota. Euh, vraiment, j'ai aussi fait mes études au Sénégal. Euh, je suis titulaire de diplôme, et c'est vrai comme tout un chacun, mais beaucoup me sur niveau de diplôme, parce en tant que qu'Américain, comme nous l'avons bon, ces diplômes-là, ils sont degré, mais est-ce que qu'on a askan Afrique njëriñ donc euh, man plutôt dama bëgg bàyyi sama frère ak sœur yi nga xam ne ñoo am diplôme yu rëy yi c'est vrai que j'en mais euh, lu tuuti la si sama circuit quand même samay idéologie ak samay dëgg-dëgg euh, jàngatu maam bon vraiment moom ma indi fii ma toll nii quoi. Hmm. oui en effet il paraît que je suis le tout premier sénégalais bi nga xam ne moo mës a taxaw si arène politique di wax ni ne dafay falu ici dans les états de dans l'état du Minnesota c'est vrai. Minnesota mu nekk un état dans le Midwest état boo xam ne ne fii la ñu raye woon euh, sunu frère boobu George Floyd euh, au passage ma koy delloo jaale àddina bi yëpp bon ñun ñoo bokkoon ci ñi nga xam ne ñun ñoo tëj policier bi Derek Chauvin euh, defe naa ñi may topp xam ma gis nañ sunu ay protestation sunu ay protest protestation gis nañ aussi bon sunu taxawaay fii si Amérique ni ñu nekkee def la tuuba sunu frère Euh, ki nga xam ne mooy avocat général bi di Keith Ellison euh, ak euh, avocat yi fi nekkoon ñu jàpp Derrick daal di bon ñun nag injustice boobu noonu daf daf ñu metti woon loolu surtout ñun ñi nga xam ne ñu ngi fii dans l'état du Minnesota rawatina ñun ay sénégalais donc man personnellement li tax mu jóg dugg ci arène politique bi je ne suis pas un politicien vraiment je ne suis politicien je un entrepreneur euh, je suis un entrepreneur dalla la mesure où bon politique musuma ñoddi mais dama xool xam ne ne gisuma koo xam ne ne nuru na ma wala koo xam ne ne immigré la comme man mais franchir pas boobu noonu ñàkk franchir pas boobu tax na aussi mënuma toog rek di seetaan tubaab bi bon di jël toujours décision pour les noirs donc c'est ce qui m'a poussé ma ne xaaral ma euh, présenter sama candidature Euh, waxtaan si ak quelque amis américains yi fi nekk ñu ne ma pourquoi pas parce que bon cette année alhamdulilah avec cette euh, ce gouvernement bu ñu am am nañ benn département bu tudd diversité equity ak euh, inclusion et accessibilité donc loolu moom moo tax man xaaral ma gàddu raw gàddu bi comme ça mën a daw taxawu askan yi fi nekk parce que aussi am na fi ay immigré yu bëri bëri bëri bëri donc état bi ma nekk dans le Minnesota ci gox bi ma nekk dans le Maple gro Euh, nous avons une population de vingt deux virgule sept pour cent te amul ku leen taxaw hmm? donc loolu moom ma yëkkati euh, dugal ma si arène bi bon bon jot naa nemmeeku fu nekk na jot naa fa dem pour xool ndegam am na sénégalais boo xam ne ici aux États-Unis jotoon na dugg ci élection ba génn si ndax mu mën ma taxaw mais bi ma demee ba si biir gis naa ni ne bon ñi ma wax ñëpp am na fi ñu fi def plus de trente ans quarante ans mais ñu ne mosuñu fi dégg un sénégalais bu aspiré wu si. ay élection fii donc euh, mu nekk loo xam ne ne c'est une première d'accord mais une première pour pour Sénégalais yi aussi parce qu'il y a des Sénégalais yi nga xam ne ne bon ñu ngi fi am nañu daraja bi am nañu xam-xam bi peut-être euh, waxtu bi jotagul pour ñoom ñu présenter bon léegi bunt yi ubbeeku na ak euh, campagne bi ñuy def muy vote samba je pense que léegi li ñuy def mooy un peu partout aux États-Unis fu élection amati rek boo dinañ def lu tuub indi ay ay éléments ñu taxaw loolu moom maa ngi si liggéey ak sama équipe te incha allah je pense tàmbali nañ ko sax parce que am na yeneen euh, race yoo xam ne ne bon instant yi ñu commencé di leen former pour que ñoom aussi ñu mën a nekk ay citoyens américain yoo xam ne dañuy dañuy bokk si élection américain yi comme tout un chacun. waaw mais tout à fait ah bon li ko gën a undu sax booy xool départ bi mooy loolu parce que bon su ma nee entrepreneur UEMOA euh, récemment bon primé na ma ak sama compagnie bi ma Sénégal muy Global Green Bees muy nuyu xale yi nekk Sénégal aussi à travers Global Green Bees au passage euh, ndax c'est des jeunes yi nga xam ne vraiment ñu ngi am benn formation américaine bu kawee boo xam ne ñu ngi koy liggéey biir Sénégal te waxuñu kenn dara donc euh, à travers wa bon yàlla def na ma nekkoon euh, benn structure d'accompagnement je pense publicité woon naa ko Sénégal sax wax ne ne képp ku soxla ñu financé ko entre un à quatorze millions de francs CFA à travers benn concours bu tuddoon temps tremplin képp ku mu intéressé bon ma jàppale ko yàlla def euh, benn si sénégalais yi am ku ci euh, ku ci gagné comme que dañu xool projet bi UEMOA validé ne projet bi am na solo war nañ ko mun a accompagner ñu accompagner ko mais bi ko UEMOA accompagner si liñ tourné xool ne kan moo nekkoon accompagnateur kii mu nekkoon sama compagnie Global Greenpeace ak Maam Samba Fall bon ñu jox ko aussi un million de francs fa may wax au passage merci beaucoup à à à l'UEMOA mais aussi di jaajëfal sama naataango yi nekk si chambre de commerce bu bu Sénégal union des chambres de commerce bu Sénégal donc euh, oui pourquoi pourquoi la culture euh, l'agriculture mais man du ma la ko nëbb c'est man je suis un je cultivateur man man man baykat laa je pense que ñi may topp gis nañu sama tool yi ma yore fii et puis li ma fii bay ah bon nekk mbay nekk na rek loo xam ne ne vraiment dafa ubbeeku pour ñëpp képp kuy def informatique xaj nga si mbay kuy def comptabilité xaj nga si mbay kuy def marketing xaj nga xaj nga ci mbay ku bëgg a ci teer bi xaj nga ci mbay ku xam ne dafa am feebaru xel ba xaj nga ci mbay bi bon mbay bi nekk na nekk na benn puissance boo xam ne ñun ñii ñëpp booy xool ah, yàgg nañ di seetaan ah, pouvoir américain ci ci bay machine yu ngand yooyu tracteur yu ngand yooyu teer yu bëri yooyu et puis lekk gi parce que tey dafa nekk benn tournant boo xam ne ne lekk dafa metti je pense suñu réew bii di Sénégal gis nga ni ne jafe na trop quoi pour gars yi añ ndekki reer rawatina rawatina rawatina sunu sœurs yi nga xam ne dañu ëmb donc euh, le milieu agricole nekk na loo xam ne vraiment bëgg naa ci former Euh, autant de jeunes que possible fii aux États-Unis parce que yor naa fii euh, benn organisation bu tudd African Immigrant Farmers Alliance donc euh, muy les amis muy les immigrés africains cultivateurs et leurs alliés donc loolu organisation la bu ma ubbi ren pour africains yi nga xam ne bon bi pandémique bi ñëwee muy Covid 19 bi ñu bëri dañ ci perte seen liggéey ñu bëri daal xam affaire dafa xaw a métti ma récupérer leen comme ça di len jox ay formation ak ay ami yoo xam ne ay cultivateur lañ tamit pour ñu mën a xool ni ñuy joddee ay terre jox leen pour gars yi mën ci gis seen bopp mais alhamdulilah rabbil alamin mi ngi am donc euh, beneen bi nga xam ne ne moo ma gën a poussé sax ma gën a jege man fii dama fi am benn compagnie boo xam ne damay def euh, interprétation ak trans trans translation c'est-à-dire que damay def interprétation ak traduction ci biir loolu nag li ma jot ci ay jeunes yoo xam ne am na ñoo xam ne buñ may seetaan dinañ xam ne ne kii mooy maam Samba Fall taalibe Serigne Touba Cheikh Fall boo dama si jàpp ñu bëri ñoo xam ne ne dama leen jot ñu jóge Brésil sama sama loxo lañ jaar maa leen doon interpréter ak américain bi ci anglais di ko wax ñoom ci wolof wax ko américain bi ci anglais déglu ci américain bi ci anglais wax leen ko ñoom ci olof mais métit boobu noonu gaa yi am man daf mu metti à l'heure actuelle fi may wax ak yow nii à New York gars yi ñu ngi foofu noonu boo kenn xamul lu ñu leen di def tant que nekkuloo un élu local par moment do mun a am approche boobu nga xam ne ne moom laa commencé di am nii avec des sénateurs avec des avec avec des gens du congrès avec des des des house représentatives comme ça may mun a tegante ak ñoom ay charte yoo xam ne dinañ ma permettre waaw man aussi may mun a jël ci xale yooyu di leen di leen former fi aux États-Unis comme ni may def ak xale américains yi donc euh, loolu nekk na beneen débouché boo xam ne ne bon vote bi nii dina ko indi euh, déjà commencé nañ ko parce que am na yu bëri yoo xam ne mi ngi commencé feeñ ndànk-ndànk je pense euh, incha allah dina nekk yoo xam ne ni dina doon dimbal pour le sénégalais bi fi nekk jàppul si dara parce que Amérique aussi bon dëkk yoon la ku fi dugg ci immigration illégale bon nga baal ma mais dafay metti quoi dafay metti trop dafay metti lool quoi donc man damay xool métit boobu naka laa si mën a defee tuuti ndàmpaay dimbali gaa yooyu noonu quoi sinon am nañ fi loo xam ne ne mun nañ ko partager ak yi idéologie bu dul gaa yi man personnellement je suis le président de la chambre de commerce sénégalo américain mu nekk euh, loo xam ne dañ ko ubbi pour dimbali suñu frères ak sœurs yi ñu mun a dugg dans le milieu de l'entrepreneuriat mais aussi lëkkaloo ko ak américains yi fi nekk te yor ay compagnie di xool buntu yi ñu mën a génnee dem Afrique de l'Ouest hmm? donc euh, si liggéey boobu la ñuy liggéey di xool suñu ay partenaires yoo xam ne ni dinañ leen mën a former accompagner leen ba ñu mën a am relation ak ay compagnie américaine pourquoi pas euh, ay sénégalais aussi hmm? buntu bi ubbeeku na parce que d'ailleurs am na benn GIE bu ñu ubbi Sénégal bu tudd union des entre union des opérateurs économiques sénégalo américain te ñooñu noonu boobu ku dégg seen wax wala ku leen jege si je pense que am na opportunité yi nga xam ne yu ñu mën a yu mën a jàppale gars yi fii si Amérique quoi. Mm-hmm.